di leen ziar di rafetlu bu baax seen ànd ak rajo Futur Media RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp di ziar suñu kilifa yu baax yi ci réew mi yëpp mbooloom xalif général di ziar euh, kilifa yi ci réew mi yëpp dale ko ci njiitu réew mi gouvernement bi ak euh, kilifa aada yëpp euh, di ñaan jàmm ci réew mi. di fàttali it sama bopp di leen fàttali mbokk yi le gest barrières maanaam li nga xamante daal mooy sànni tàccu yi fi des ci wàllu xeex ak gan gi ba mu jóge fi mooy raxasumeeg masque yeeg sorianto gi ku di ca xel ci xam ni jàngoro jaa ngi fi ci it ba tey li muy sooxeel bari na lool ku ne xam nga ni réew mi boobaak léegi waxuma sax mbiri koppar ni ko sekkee na njëwee ni bëggee waaye xel yi tëju rek sëngéem euh, lu miti la bu ñu sañoon bopp yi tëju yëpp ubbiku euh, yàlla na ko suñu borom def euh, ci téléphone bi ak ñun docteur Aloyse Waly Diouf docteur ñu ngi lay ziar bu baax dina la gërëmati ci ànd bi saa su ne ak ñun. jërëjëf docteur daf mel na ngaa sonn tey de wala. <laughs> ah très rapidement waaw <laughs> ah d'accord waaw ah.

Mm. Hmm. am na ku ma doon wax ku ma doon laaj mais comme du du du du docteur ñu ñu bu dee mun na ne ah, euh, cont cas contact yu bari yëpp macha allah est-ce que mënu su leen a jox ay ay ay chloroquine wala dara pour kar mbir mi moom lool loolu nee na dafay maye xëy na après euh, taux de positivité bi wàññeeku wala loolu scientifique scientifiquement mënta ne. Mm-hmm. ñi ko amee ba pare. Mhm. Mhm. ok c'est un choix wala loolu la yoonu kër docteur wax. Mm-hmm. Mhm. Ok. Oui, oui. Mhm. Très bien. c'est vrai que nous, avons des sañ-sañu mais nous l'air. ni donc waaw <laughs> vraiment c'est valable pour tous les autres yi may déglu ñu xam mbir moomu dañuy mais docteur yi faj bu ñu lii protocole bi nañ ko ndax armoire la mën a ah euh, am na ñu ne ñoom dañoo gis ne dafay yàgg les cas asymptomatiques ñi nu baax fu mel ni géréw am na ci ku ma woo démb ne ñoom leen jaaxal daal bu ñu sañoon ngeen indi ci saafara mooy euh, ginnaaw test yi ñu dem deflu ji dafay yàgg lool résultat yi am na ñu def ñaar fukk juróom-ñaari fan am ñoo xam ne nañ ñeent fukki fan na ngi ña nga fa est-ce que euh, da ngeen ñàkk personnel wala lan moo tax yeexaayu résultat test yi. problème boobu am solo la wala bi warul yàgg ci centre de traitement même bu nekkee centre de traitement asymptomatique. Mhm. li ci am nag mooy euh, di nga gis malade yoo xam ne au bout de cinq six jours ñu wër ñu ñibbi comme am na ñoo xam ne. Euh, bu ñu def fa quinze jours. Mhm. am na malade yoo xam ne tey boo demee seen six cent traitement yi nañ la wax euh, man yëguma dara sama yaram mais maa ngi ci depuis quinze jours mhm. loolu defe naa ci euh, virus bi ni muy multiplier woo ci organisme ak biréem mhm. bi yooyu mooy tax souvent kii bi di xaw yàgg rémission bi maanaam wër doomu jàngoro gi moo dul deewagum ci yaram bi mais est ce que am am na ci wàllu communication accompagnement bi xam nga boo nekkee hôpital entrée léeg-léeg infirmier sax ñëw wax la sa état fii tolluwaay li loolu euh, au moins mais bu fekkee ak ak ak euh, neen dafa am euh, moo waral nit ñi di posé wu beaucoup de questions <coughs> xam nga de manière générale de mhm. manière générale booy recevoir nit rek communication de war a am mhm. muy ci muy ci bërëbu banque muy ci bërëbu euh épicerie yi hmm. rawatina nak ci walum wor gu yaram nga xam nit ki dafay xaw a jaaxle mu ñëw hmm. eh, donc euh étape bu nek même bokay jox traitement war nga ko expliquer li tax nga koy jox traitement hmm. bu fever bi di évoluer war nga ko wax feebar bi li ak li lay évoluer parce que mom dafa wara bok ci pej voilà wara bok ci pej maintenant nak mu adhérer voilà xam xam ko ne doomu jangoro bi dess na sa yaram ci bu yeggee fi xëtër ni la koy def koku day adhésion day am waye bu xamul rek da nan wa man gars yi dafa fàtte fii voilà ah. mais loolu loolu defe naa ñu ngi ci ñaax personnel de santé mais il faut ñu féliciter leen parce mm, que mm. dangay ngay nekk ci centre de traitement boo xam ne nag da ngay gis ay trois cent personnes deux cent personnes lim bi day yokk euh, du du xaw a yomb ci ñoom mais en tout cas ñu ngi leen di encourager ci mm. loolu pour que ñuy mën a waxtaan ak malade bi parce que euh, malade yi tamit war nañu xam ñoom fu ñu toll ci peñ bi ak li tax ñu leen di téye ci côté social gi ndax ndax di nga fa mën a àddu par exemple ñi nga xamante ni ñoom ci lañ daa yëngu bis bu ne la ñuy yóbbu seen kër ñu tej leen fa ab diir est-ce que laajul identification ak ràññeetle ngir taxawu gi maanaam de façon cible eh, da nga ci tontu wala ma xaar ba jotaat sama jigéen Aram seen directrice de l'action sociale waaw xam nga euh, dañuy dañuy am ñun ci traitement bi mhm. ñi ñuy gën a ciblé di leen gën a ber mooy ñi nga xam dañuy am comorbidité maanaam dañu am beneen maladie chronique ak ñi nga xam ne euh, seen dañu dañu jëm mag mm-hmm. léegi nag am na ñoo xam ne te foofu nag dama ci taxaw tuuti parce que dama yàgg wax ne euh, boo amee activité économique yow kenn warula wax nga fagaru mm. parce que boo nekkee hôpital rek sa activité économique dina dina dina paralysé wu pendant période bi ngay nekk hôpital mhm. te bu activité économique bi paralysé wu rek c'est que sa njaboot aussi dina sonn mhm. c'est que ñeneen ñi nga doon jàppale aussi dinañ sonn donc ci wàllu boobu aussi mhm. il faut que nit ñi xam li tax ñun ñuy xa ñuy xar suñu tànk tubéy pour plaider affaire prévention maintenant euh, ci beneen côté bi euh, je crois que boo wax rek directrice générale l'action sociale dina la wax loo xam ne ko doon nañ ko def pour ñi nga xam ne dañoo mun activité. pour mun leen soutenir. ah très bien kon am na luñ luñ doon def ci côté boobu. voilà voilà ah, bu nit ñi di génn. très bien si ci wàllu wér-gu-yaram ak pic bi ñu ne ba tey atteindre nañ ko atteindre ñu ko xam nga tey jii buñ ne sori nañ pic bi ça veut dire que nar na yàgg buñ ne romb nañ ko ñu dañu jaaxal ndax kañ la ñuy wàcc plateau bi. waaw ba xam nga affaire affaire pik yooyu. Hmm. Euh, dama dama gëm ne. dafa dépendre ci comportement askan parce que euh, boo xoolee euh, feebar bi am na nu muy lawee au début bu nit ñi di respecte un minimum de gestes barrières hmm. dañu am yenn cas yi ñu wàccaat commencé am ay plateau mais bu ñu amee relâchement feebar bi day ñëwaat hmm. te bu ñëwaatee il faut mu demaat ci beneen pic hmm. donc li nga xam ne jotoon nañ ko am muy euh, benn nombre bu élevé courbe bi léegi comme wàccaat décroché waat tuuti ñu nekk di osciller ci plateau entre cent cent dix ak euh, quatre vingt malades loolu je crois que il suffit que ñu li ma doon wax démb il suffit que ñu amaat sursaut ñu am sursaut d'orgueil boobu rek pour que courbe bi continuer wàccam mm. mais suñu suñu amul sursaut boobu bu ñu relâché woo loolu mun na créer waat épidémie bi gën a jógaat hmm. et c'est là où c'est important que euh, ñu mën a d'accord ci leen c'est que lépp lu ñuy séntu ëllëg muy lu baax muy loo xam ne dinañ amal njëriñ askan wi dafa hmm. laaj d'abord hmm. ñun ñu farlu ci dëgg la ci geste barrière yi maintenant euh, àddina moom njortugu gu rafet gu jaaw ànd ah. il faut s'attendre à ce que yëf yi jolliwaat ca boobaa nag moom <laughs> waxuma la ca saaku ya waaye suñu bopp suñu kanam yi la ñuy jiital bu boobaa. waaw waaw waaw loolu moom loolu moom aussi il faut pas que hmm. euh, xam nga booy wax ak askan wi aussi dafa baax nga leen di wax dëgg. Hmm. dëgg gi mooy euh, du am miracle buy jóge ci jaww ji di ñëw. Hmm. dëgg gi mooy il faut que ñu gën farlu ci ci ci ci geste barrière yi soxlawul mhm. alkati di nekk suñu ginnaaw pour wax ñu nañu sàmm suñu wër gu yaram man defe naa loolu aussi mhm. lu am solo la ñeneen ñi nga xam ne nag euh, dañu nekk ci dëkk bi bu ñu waxee lii ñoom ñu ne gëmuñu feebar bi loolu je mhm. crois que il appartient ñun ñi état bi ak suñu mm -hmm. yeneen secteur yi ñoo war a xool nan la ñuy fexee ba ñooñu mhm. ñu delloo si leen si yoon parce que dañu mettre en danger souvent euh, euh, dundu mhm. nit ñi te loolu je crois que euh, ñu ngi ci ñu ngi ci xalaat am na ay actions yoo xam ne maa ngi koy gis sur le terrain mhm. démb am na fu ma dem ci booru benn marché seen autopolis bi gaare ko solul sa masque ñu jël la yooyu je crois que baax na parce que du du du du soxor du répression mais euh, tant que yow yaa ngi dox di mettre en péril dund nit ñi rek. Mhm. yow dañ la war a jël. delloo la à la raison. kooku moom yoon la neutraliser kii euh, xajamal santé publique bi. très bien euh, docteur kon ba ci kanam 10 heures ak. rendez-vous ministère bi merci docteur Aloyse Waly Diouf jërëjëf professeur Daouda Ndiaye la nuy daal di teg ci waxtaan wi bu dee teew na professeur. El Hadj da nga def. da nga ah, leen nuyu sant yàlla yëpp. jërëjëf. Ndiaye noo fanaano sant bu baax a ngi ci xeex ba léegi wala. waaw waaw ñu ngi ci ñu ci ñu ni ko docteur waxee rek docteur ah, ah, Aliou. Ali Mouba moo réalisé eh, kii bi nee na ma sanq daan corona amatul parce que ñi war a xeex xeexatuñu muy communauté bi nit ñi moom loolu lay mettitlu lu tax nit ñi ñoom wàccee seeni loxo. waaw loolu moom loolu moom te te euh, loolu moom constat la buñu ñu bu ñu def ci lu bari. Mm-hmm. parce que malheureusement loolu am na. Euh, te peut-être ñenn ñi dama rek parce que man gis naa sax ci yenn bërëb yoo xam ne da nga koy dem. Mm-hmm. gis ñu bari euh, toog dajale. bon peut-être man dama yaakaar ne dañu gëm ne bu fekkee nekkul place publique rek. peut-être waa dante mënu fa am alors que ku nekk fa fu ngay jógee bokkul ak sa morom. Mm-hmm. da ngay gis parfois ñu wàcc masque yi. Euh, te boo xoolee ñenn ñi am na ñoo xam ne man day may laaj man ana ah, sa masque mi uh-huh. ne si mu ngi sama mën na ko may génne ko parce que en réalité masque pour takk la. vraiment donc donc bon te te encore une fois pour man euh, xaw ma nag fan la problème bi nekkee. wax dëgg mm-hmm. yàlla xaw ma mm-hmm. fan la problème bi nekkee mais bàyyi ko moom moo euh, gis nañ ko ci lu bari moom. Mm-hmm. loolu moom te te. est-ce que du ci nangu nangu ndigal li xam nga de général générale. ak nangu yombul ga mais sénégalais yi dañoo foog ni daal bañ gi ci la njàmbaar nekk même circulation bi da ngay gis ku ne defee nu mu la neexee est-ce que mënuñu àndandoo parce que nag euh, ak jàppalante ak yar boo gisee réew yi avancé yépp bu weesoo daanaka xam-xam bien évidemment mais loolu ci la ñuy defee ay bon en avant mais bu dee rek nii lañ ko bëgg a jàppoo juróoma ku ne bañ ku ne di génne dënd mais du du duñ dem fenn duñ bouger moo tax peut-être peut-être li nga ko waxee démb li nga waxee démb peut-être gën a gën ñaax euh, euh, ñi jiite ñu gën a continuer andak communauté bi parce que am na am na loolu moom am na mais hmm. peut-être ñaax bi di gën a bëri bon euh, te aussi te te di fàttaliku toujours parce que man damaa ragal ne bon parce que du ñàkk aussi benn ñaar booy dégg moo ba léegi ñu ne la mais est-ce que est-ce que est-ce que am na et cetera. Hmm. bon peut-être ñooñu aussi am na rôle bu ñuy jouer. parce que xam nga bu fekkente ne am na ñuy ñuy ñuy informer. Hmm. ñeneen ñi di désinformer. day day jouer un rôle te am na ñoo xam ne euh, man toog naa. ci benn hmm. sama benn sama benn xale. sama benn daal tout rak laay wax. oui mu ne mais professeur est-ce que xeex bi euh, jàngoro bi nu ngeen ko nu ngeen koy waxee est-ce que réellement amee noonu danger daal. donc nga xam ne xamul. man hmm. kooku moom dafa ma interpellé directement. ma ne si am expliqué ko. donc pour dire que ñàkkul ne parce que minimum yenn saa yi la may dégg leneen. waaw nga xam ne bon bu fekkente ne ñenn ngi informé ñeneen di wax leneen day xaw nu mu duróol mhm. moo tax toujours bu bu bu bu fekkente ne moo tax bàyyeeku bi ci ñu war a informé ñu war a ñu war a jiite mhm. boobu bu mu dakk tànk yëpp jeex parce que bu ñu tàyyi mu koy waaw bu ñu tàyyi parce que fële te ñenn ñi ku bëgg ñu bëri ñu ngi ci askan bi nekk àla ñu ngi ci bëgg nañ ko leen ci jàppale mu jeex mhm, parce que foo déggee ku la laaj am na koo dégg bu naan la ñu bëri ñoo dégg ñu naan la yëfi yàlla nañu yàlla dimbali mu jeex dëgg la donc pour dire que pour te dire que appel pour dire que ñi liggéey ci affaire bu bu wax parce que il faut que ces deux cas pour toujours di nga mais en tout cas du de surtout personnel médical parce que vraiment dañ ko dul wax rek xam nga euh, dafa euh, position de fait yow mais sonn nañu gis nañ ko sax même Italie am na benn moment da ngay gis personnel médical naan dimbali leen ñu aider nous à vous aider ah bu bu ñu leen dimbaliwul ñoom duñu mën a dimbali. Euh, ma des ci wàllu scientifique gi professeur. laaj ndax est-ce que yëf yi ça bouge un peu quand même au au niveau national <laughs> yéen scientifique yi ma il faut ma leen di mettre pression quoi. Ah, ah, parce que parce que li ma la mën a wax mooy. pour El Hadj Assane te yàlla rek tax mu ngi bouge euh, ñu ngi ñu ngi waxtaan ci lu bëri ci suuf ci wàllu stratégie ci wàllu ci wàllu. Euh, xalaat ci ci ci lan lañu mën a def pour pour pour affaire bi bloqué wu pour gën a xam yenn yi même ba comprendre communauté bi ñenn ñi ni ñuy we parce que loolu yëpp euh, euh, euh, pour réflexion la boo xam ne. Hmm. gistu la boo xam ne parce que comme comme ni ñu ko xamee parce que au départ bon ñu bëri yaakaaroon ne ñetti weer lay def ñaari weer ñeenti weer. mais tey boo xoolee nu mu demee ni nga xam ne kii gëm naa ne ba tey mun na am ne mu yéex a dem. donc il faut que aspect scientifique bi jël place am ba mu taxaw pour ñu mën a comprendre yenn yi comme ni nga ne par exemple nii li tax euh, euh, ñenn ñi amee yenn taxawaay yi. kooku mm-hmm. scientifiquement la ñuy xool lan moo ko war lan moo ko war a indi. Mm-hmm. ak euh, docteur Diouf mu ngi doo wax Alice mu ngi doon wax démb wax socio anthropologue ñooñu dañ seen rôle mooy ñu xam leneen ne. Mm-hmm. ci wàllu ci wàllu faj bi également ci wàllu diagnostic bi parce que boo xoolee également tey même ba ci diagnostic bi ñu ngi ciy xalaat pour que dem ba. tey boo xoolee diagnostic yu bëri ci ci barabul euh, laboratoire yu mag yi la. Hmm. est-ce que mënuñu dem ba am diagnostic yu nga xam ne boo xam ne foo demee rek comme ni ko ni ñu koy defee ci yenn jàngoro yi boo ko foo ko dem mun ko fa defee ñu ngi ci liggéey ñu ngi ciy xalaat. Hmm. pour dire que euh, euh, science bi moom pour dire vrai te ñu ngi may dégg ñu ñàkk ñu ngi may dégg à tout les niveaux. ngi ci ngi ci ngi ci. mais mais mais nak, bon avec tout le respect qu'on qu'on doit à nos valeurs scientifiques bu buy bu tojul du am c'est-à-dire que amna ñu doon wax ñun est-ce que mëneesu la xool lan mo mona don doon préventif. ñu daal di koy mm-hmm. wasaare ci penc mi mm-hmm. c'est-à-dire ñun euh, ak ñu seen xam-xam toll yéen ñun njeexite yi rek la ñuy xaar les mm-hmm. les résultats li ay gët mën a tegu. est-ce que ne sent pas au niveau national bu weesoo njàmbaarte gi euh, ñenn fatka yi wane ci wàllu chloroquine gi mais gisunu ak ak xër ci explorer yeneen yi yoon euh, gaaw cee génn lu ko mooy parce que waa tugal ñoom ña ngay déconfiné yi dem ak yooyu xëy na sax am na ci ñu xaw a tëjuwaat ak yooyu mais bu ñu moytuwul dinañu tardé gi dina gën a yokk. mais El Hadj Assane dama war a il faut ma préciser leen na euh, gis nga science parfois mënut a gaaw. Hmm.

Euh, lu mel ni tuberculose par exemple. mais nga wut kar mbir mi say yi boo doon boo doon inondé kay da ngay fatt fenn fatt nit ñi waaye doo ba lépp ne ne ne ball sa kaw. dëgg la Alla Yacine lool loolu nangoon nañ ko mais pour ñu xam ne rek en tout cas euh, rapidité parce que euh, gaawaayu chance moom. Hmm. luñ ko parce que buñ ko gaawantee rek danañ fa xastalu hmm. dem ba ci biir gis ne foofu du yoon bi mais en réalité te lépp dañ koy testé parce que sart si boo gis bu bu tegu rek. Hmm. laaj nañ ci xam-xam scientifique yi ci même au niveau de ce pays ah. ok ñenn ñi wax ni ñenn ñi wax ni après ñu xool dem ba ci biir et cetera mais pour dire une chose euh, jàppal ne loo gis ñeneen ñaa ngi koy taxawal scientifique yi ca côté nelawuñu hmm. yendaluñu. Hmm. ñu ngi ci te te te te gëm naa ne euh, wallahi bu ñu fekkoonte ne. Euh, solution am na feneen gëwuma ne ñun dinañ ci njëkk ci quoi que soi par rapport ak en tout cas ñun compréhension feebar bi par rapport ak également aspect préventif bi mhm. parce que adduna euh, euh, surtout feebar yu mel nii comprendre ko d'abord mooy poser problème bi mhm. même si parfois et je l'ai dit da ngay gis un collectif benn collectif scientifique toog dix yëpp bu ñu toogee sept yooyu d'accord fenn fii ñett ñi d'accord ñu mais en général consensus li ñuy jël ñett ñu jël li set ñu wax ñu def hmm. buñu demee ba ci biir gis ne ah kon kat du noonu ñu ne kon lañ xoolaat ñi ñetti ñu waxoon ñu jël ñu jël ñu doxalee noonu hmm. noonu la science di doxee parce que hmm. boo ko deful noonu rek doo dem ok léegi beneen tiitaange bi mooy kon mbir mi euh, même bu demoon sax euh, fii ak ay bés mu desaat ci penc mi des koo xam ni mun na ñëwaat loolu loolu day day aspect scientifique général la nañ ko sooraalee mën na jeex complètement comme mën na ñëwaat comme mën na mën na des ak tuuti tuuti mais li ci gën am solo àlaaja seen boo hmm. demee ba nga xam ne maîtriser nañ ko à l' national mooy li ci waroon a xeex bi parce que bu ñu demee par ñu naan la mu ngi wàññeeku bale pratiquement jeex na parce que feebar la boo xam ne li ñu yaakaar ñun li ñu yaakaar mooy bu fekkente ñu bëri laal nañ ko sa dire que laal na leen du ñàkk noonu am nañu immuni dañuy dañu immuniser wu. Mm-hmm. mooy pour feebar bi même bu lay laalaat la mën na la bañ a lor. Mm-hmm. parce que sa yaram développé na ay anticorps. loolu lañ yaakaar nag bu ñu fa eggee. bu ñu fa eggee bu fekkente ne egg nañ fa rek. ba mu leer mu ma ne ba ñu leer ñu ne ne laal la ñu war laal yaakaar nañ ne dina wàññeeku tout sa également aspect scientifique boo xoolee tey euh, même ay tests yu nga xam ne dañuy xool ndax am na sa yaram am anticorps

wala wàllaate na ko feebar feeñ na si moom mhm. bu fekkee fekk ba feeñul ci moom mooy moo tax test bi négatif maintenant bu test bi négatif lan moo ñu war a mën ne moom moo ko wàlle bu fekkee am nañu test bu ñu mhm. xool anticorps yi bu ñu xoolee test jox ko mhm. dañuy gis ne yaram bi am na anticorps yooyu dañ naan ah donc effectivement moom mun na nekk ne moo ko wàll pour ñu xam ne donc fii la wàlla def nekk mais yooyu est ñu ngi ci est ñu ngi koy ñu ngi ciy gëstu ci réew mi ndax xam nga fan ni am na débat bu jógoon ci ñi nga xamante ni mandargay jàngoro bi du feeñ ci ñoom que ñoom du nu du ko wàlle nee na ni maanaam daanaka sax dun du ñoom ñooy wàllee euh, am am am ñu ne déet ci ci njëlbeen sax déggoon naa fi ñu ne jàngoro ji balaa ngaa commencé wàlle mooy bu symptôme mi génnee maanaam fièvre ngay ñaq di sëqat ak yooyu euh, yooyu xeeti gëstu laa bëgg ñu koy def ak ñu nuy wax résultats yi ciy tukki ak avancé yu nuy def. qu'on sente qu'on qu'on avance mënuñu santir ni que rek réew mi danoo nekk ci ak ak ak ak euh, waaw bah, bah, peut être que foofu la problème de communication peut être moo ko sooxee mais li ma la wax moom am na te mi ngi existe actuellement ñu ngi ciy gëstu loolu loolu ñu ngi ciy gëstu mais peut être la communication am na benn bis bi nga ne euh, yéen il faut ngeen di communiquer ci yu bari yi bon je pense que loolu aussi dafay am solo pour dalal xel nit ñi par rapport à beaucoup de choses wala ne nit ñu ci ñu ci ñu ngi ciy liggéey hmm. donc euh, mais mais en tout cas toujours est-il que euh, gëstukat yi ñoom muy corps médical bi kenn nelawul yaa ngi liggéey li ngay liggéey si sa barab te te te wax ci jógul. très bien mm-hmm. xam naa laata ñuy tàggoo nga waxtaan ak askan wi rek fàttali leen aussi. gestes barrières waaw waaw waaw dëgg la jërëjëf El a Assane askan wi moom liñ muy damay tàmbalee sama bopp laay fàttali ko rek. Mm-hmm. mooy euh, euh, d' abord port de masque yi dañ ci insister. bon euh,

yow bu fekkee yow rek yaa fa nekk sax nga mm. dugg fa nga solul takkuloo masque bi moo tegee sa loxo foofu mën nga juum teg sa loxo sa kanam moo tax le port de masque port de masque bi moom mooy loo xam ne mooy première masque barrière boo xam ne bu ko ñëpp jàppee mm.

toujours est-il que. embouteillage sax dafa revenir à Dakar nga xam ni kon euh, yëf yi moom. <laughs> dellu na fa woon. mais toujours nañu rappeler les mesures barrières rek. premier mhm. masque de ba premier mooy mooy port de masque bi. parce que am na fu ñu wax dem mën a am na ci benn si euh, euh, comité bu ñu bokk bu ñu naan nit ñi. Mhm. nañ il faut ñu xam ne kaa ngi te nit ñaa ngi am ñu ngi ciy faatu donc nañuy takk masque yi. di fóot masque yi chaque jour. Hmm. masque yi su bëri toujours léegi nañ koy fóot chaque jour. parce que ñaari masque sax boo ko amee je pense que mën nga ko awalee boo fóotee bi tey ak <laughs> saabu. bu subaa nga takk ko. nit sax de looy teg sa kanam di ko nooyee euh, jaar sa gémmiñ <laughs> ngay xaar ñu ne la fóot ko. te dina lijjanti lu bari bari <laughs> boo xoolee nga ko war a fóot balaa la xet a rey sax. waaw ah. waaw waaw moo tax nañu continuer El Hadj Assane dañu continuer wax dañu continuer wax rek parce que moom. waaw en tout cas daal du yomb de du yomb. waaw du yomb waaw ah, justement feebar nag moom su bëri yu mel ni El Hadj Assane du yomb de. Mhm. du yomb te encore une fois di gën a jaajëfal as les leaders communautaires. oui mooy El Hadj bu buñ leen di fàtte mooy d' abord pour man effectivement le corps médical. Mhm. ñooñu fajkat yi ñun sa à dire ci biir hôpital da ngay yërëm sa personnel da ngeen di yërëm parce que xam nañ ne parfois mm, sonn nañu dëgg la te te parfois dañuy am benn psychose bu nekk ci ñun lépp sama yoon dafa daw alaaj Assane ah. dafa am sama personnel boo nga xam ne dama ko beroon ne ko bul parce que par dañuy séparé deux par deux groupes oui ñëpp cette si gën a amul expérience ma leen toog leen seen kër mm-hmm. dem mu ñëw mu woo ma ne ma bëgg reprendre pour jàppale nit ñi. parce que ah. c'est vrai am na centre traitement. mais tey hôpital foo nekk rek risque la parce que bépp malade buy dugg hôpital tey. dëgg la jàppal dañu jàpp ne war na mën a daal doomu jàngor bi. dëgg la parce que ñun dañu jàppale ci lu bari ci xeex yu mel ni si buru yi nga xam ne am na mooy bàjjenu gox yi. Hmm, hmm. mooy mooy nijaayu gox yi. mooy mooy mooy leader leader ASC agence communautaire mooy Euh, euh, kilifa diine yi kilifa aada ñu ngi c'est-à-dire que il faut toujours ñu mhm. pour ñu leen di gën a ñaax euh, ñu jàppale. donc je na solo nañ continuer mhm. na ah. yàlla baax na. continuer est-ce que ça suffit sax parce que xam nga <laughs> na loo xamante ni moom boo amul choix moom parce que mu jógee fi rek mooy solution de. amul beneen solution amul beneen kon kay. c'est vrai que c'est décourageant. parce que xam naa ni docteur yi mënuñ koo wax yow mën a ko wax keneen noonu nit ñi sonn nan tàyyi nañu. waaye bu ñu wàccee loxo yi mukk parce que nag.

dina métti trop trop trop. mais mais encore nañ nañ commencé di communiquer waay yéen yéen fajkat yi bu ngeen mënewul benn système boo xam ni ci ci lu leer nit ñi di communiquer ci wàllu euh, euh, symptômes yi ak ràññetle euh, corona ak sibbiru ndax comme nawet dikk na daal. bu ñu mënee réfléchir ci ba pare mu doon lu vraiment ñun rajo yeeg télé yooyu ñu wutal koy espace quoi ñuy waxtaanee yi nga xam mooy farata balaa problème am. d' loolu moom dinañ dinañ dinañ ci taxaw allah. sinon di nga gis ku si buru bon ñu ne ko da ngaa corona vice versa. dëgg la dëgg mën na indi suppose mën na indi lu beneen mën na indi benn problème également ci gestion pandémie bi. très bien dinañ ci taxaw incha allah. professeur ñu ngi lay gërëm bu baax di la. sant maa ngi lay jaajëfal El Hadj Assane. jërëjëf Ndiaye jërëjëf bonne journée ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ci ànd bi ak RFM saa su ne ci euh, xeex beeg euh, corona gars yi boo gisee seen moteur yi noonu daw ci njëlbeen ak léegi xa ah, Ablaye nga xam ne <laughs> ndax Aloyse léegi mu ngi deuxième alors que demoon na fi ba ay cinquième vitesse euh, professeur Daouda Ndiaye mu ngi troisième vitesse <laughs> man moo xam naa boo demee maa ngi <laughs> point mort mais lépp rek euh, ñu bañ a tàyyi ni ko sama soppe ba sama wasile bu baax bi sëñ Maodo si da baax ma koy ziar baax di wax rek euh, sëñ Pape Makhtar kebe ñu ngi leen di ziar bu baax Ablaye taalibe Cheikh xam naa noonu nga leen di ziare se xol xam naa ko ak suñu xalifa bu tedd ba ci Tiwaawoon sëñ Babacar Sy Mansour ak mbooloom xalif général yi réew yëpp di leen ñaanal gudd fan ak ndax ni ñu koy waxee rek ñoo ne ci kurus yi ñoo ne ci ñaan gi moom xam naa bu nu amuloon ñaan du baax <laughs> nu nu dëgëree bopp ni <laughs> ñu baal ma waa Sénégal 88 628 14 14 ci kanam tuuti mbokk yi ñu fàttalante les gestes barrières laata ñu yëkkati jotaay gi jërëjëf Abdoulaye

suñ borom bi rek ak àjjana rek la doon waxtaane rek ak lu baax dëgg la macha allah yàlla na ko yàlla xaar àjjana di ñaan sëriñ Mountakha Bachir mu yàgg fi loolu te yaa sëriñ Cheikh Fall xam nga man li may toujours rek vraiment daal man léeg-léeg sax damay tay damay xaw a dem ba mujj gi damay bëgg a découragé mais yaa may encouragé waat. découragé de non non c'est vrai parce que xam nga ñun. découragé de de de waxal sama morom yi ñun ëllëg ñun yor amu kay kay réew mi ñun ñoo ko yor ci ñun lay mujj. dëgg la ëllëg si biir ñun ñoo doon ñooy dem assemblée. ñooy dem économie euh, sociale. ñooy hmm. dem ñooy yor oto yor nangam. dëgg la kon dafa am loo xam ne lii ñuy wax nii. Hmm. médecins yi. ak ak ak ak ak ak ministre santé li ñuy wax ñun la ñuy dimbale. dëgg la ndax ëllëg dëkk mag mag dëkk bu amuti mag. waaw daanaka du dara. Hmm. parce que boo xoolee ci kër laa ko xamee. li tax ma xam loolu yàlla yàlla yërëm sama waajur bi mu wàccee liggéey. Hmm. ci laay soog xam li mag di jëriñ ci kër. Hmm, kon bu fekkee na tawat bi ñun mënuñoo faagaagal. mën a faagaagal suñuy mag ñun war na ñëw daw ngir sàmm suñuy mag. te mag dafa am njëriñ ci réew. dëgg la am na solo. mag am na njëriñ ci réew kon nañ wax suñu bopp waggal sunu mag ñii. Mhm. lii nga xam ne moom la ñuy wax du ay ay feeru ay président Macky Sall bentoo mu jóge si mun fee yàgg yàgg ba weesu fi mandat bu mu jeexee day demaat keneen mhm. mooy ñëwaat. Mhm. kon li waaye war a sóoli nan respecté ministre Bayer yi wax. di takk masque yi ñu ngay jàpp di la fayloo trois mille mm. wala six mille ngay ñaan intervention mm. asgor war na ko rus war na koo jomb nañ jombale suñu bopp lii ñu nekkee dimbali suñu bopp dimbali réew mi li waaye war a suuli tey loolu dong laa wax maa ngi jéggul ñëpp leen baalaax di jaar ajal soor dem ci tubaa daara xudam jërëjëf jërëjëf jërëjëf alaaji xaas koy gërëm Adja Soda ñu ziar ko ni nga ko waxee mu ngi fàttali moroomu jeunam yi ne lii nuy wax lépp pour ñoom ma yàgg naa leen ko wax fii <laughs> waaw mag ñi di leen gunge rek de waaye avenir bi moom c'est na muy mel mooy nangeen koy def asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ah <laughs> Adja Soda. allah ji asat na def Guèye. Adja sa mbokk xaas léegi la lay ziar nii. en direct billaay de bu sañoon dara du ma dal mbay. <laughs> billaay jeng jeng. yal na ma ko yàlla fayal. amiin yaa rabbi. fayal ma leen yéen ñooñu waa RFM ak TFM. amiin ñu bokk leen di ñaanal fan wu gudd ak wér gi bokk. amiin ñu bokk dëgg la. xaas de li mu rek moom laay wax. Mm-hmm. waaye nit ñi nag moom Alaaji Asan moom ñangoog noonu rek. Uh-huh. bu la fukki nit rombee takk masque. Mm. téeméer dana la romb duñ ko takk. Mm-hmm. xam nga masque moom moo mën léegi xam nga nu ñuy def ñun ñii di takk masque te ñun nan jonganteeg ñoom nañ ko def. défi nañ nañ relever défi bi war leen ni ñoo leen ëpp. <laughs> wallaay wallaay waaw nañ sensibiliser yokk lim bi rek maa ngi jàllee eh, eh, sëriñ boobu wàccu mm. liggéey Tiwaawoon. waaw El Hadj Tafsir Sakho. El Hadj Tafsir maa ngi koy jàllee jërëjëf di jàllee sama xarit sama càmmiñ Khalifa Sall wu génn àddina. Ah, dëgg la ñu koy jaale baax maa ngi ko koy jàllee yàlla na ko àllaaxiraam dàqal àddina te dëddoo ko jàmm amiin yaa rabbi directeur hôpital Ndaamaatu boobu nag bu ñëpp ku meloon ne moom. Mhm. mention spéciale docteur Souran. Mhm. Alaaji Assane Ndaamaatu doo fa dugg te gisoo ko takkul masque. très bien hôpital ba set wecc wecc wecc wecc munoo faa for bant munoo faa gis lu piqûre bu nu sànni wala nga mhm. gis fa dara. macha allah. maa ngi ñaan directeur hôpital yépp ñu def na hôpitalu Ndamatou bi mm. personnel ba amub yar ami teggin di toppatoo malade ya ndeysaan am na solo loolu daal maa ngi ñaan directeur hôpital yépp ñu góorgóorlu ci loolu ndax première mooy set mm-hmm. mais Alaaji Assane bu ndox amul ci set du am dëgg la ñàkk ndox mi wax ci nag Alaaji Assane mi ngi bëgg ëpp na ëpp na kay ëpp na ah kooku moom ëpp na kër hmm? il faut gars yi wut solution de ndox te dafa yàgg daanaka am na koñ yoo xam ne màggalu Touba ba léegi amuñu ndox Alaaji ah, ah. Ah, loolu métti na ah borom Touba Touba. màggalu mm. Touba ba nëgë am na koñ yoo xam ne dañuy wuti ndox dañuy dañuy jéggaani ne. Mm-hmm. loolu nag metti na alaaji asan nag ngir yàlla ak yonent bi ndox mi nan ñu ci dimbale. ñu ngi lay dégg de ñoom ah. kilifa yëpp ñu ngi lay dégg xam naa dinañ ci wut pexe li amoon tabaski gi ren ñi ngi ñaan li amoon tabaski ren buñ ko fekkee jàmm bu mu mm. amati naqar yi doy mm. maa ngi koy lancé appel ministère bi ndax kan nag laal yoon di njaamur. Hmm. Aminata Mbengue Ndiaye néew fi yàlla fi ne. Hmm. ba mu ko yoree nag moom matal la ko sëkk yàlla rek laay seedeel ak population bi wax ma ko nag. Hmm, nanu dimbale nag ba ren bu xar manqué nag. ndax doole yemul. Faaleen Faaleen yaa ngi lay dégg sama doom ji góor ji Makumba Bey. Makumba dina ko dégg bu baax ñaanalal ma ko gudd fa nag wér. amiin amiin yaa rabbi yéen ñëpp. amiin Adja <laughs> Sow de Dieng ma ne ko Faaleen nag jaañeen yaa ngi lay dégg de na xar doy. <laughs> <laughs> daal dañ remplacé xar yeeg ay <laughs> xar wala Ablaye tu es preneur nañ léegi fu xar daan taxaw na fa masque nekk <laughs> kon c'est que nag njaween def fi marche bu rëy 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. Alaaji Assane. waa kooku. Ibrahima Ndiaye Thiès cité Bala bi. ah sëñ Ndiaye ñu ngi lay ziar waay. bisimilah naka waa Balabe. wa ñi <laughs> ah, ngi si ñu ngi si ndox rek. comme ñakum ndox. waaw. Ah, Balabe Balabe cité cité machallah bu ki la won ay jamono de. ay jamono wa ñu mu demee léegi chemin doon dox. waaye léegi chemin de bi dox wax nga deug de. waaw yalla xam doyna na. de ay xey ana xey xey ya nga fa. wa fan ye iya, dagal nañu ne dañuy indil ay lampe eh, bay ba leg gisunu dag nañ xey yep dag nañ xey ci gisunu lamp. Oh, ba ah lampadaire ba léegi gisaguñ de. waaw ah, loolu moom di dina ñëw. Oh. waaw incha allah. ay <laughs> lajasan ah masque yi am na ñuy takk am na ñuy takkatul ñenn ñi nag boo leen laajee dañ ne la état bi daf ñoo nax parce que ñoom ñoo njëkk a juum ci seen communication dañ lay wax ni pourquoi ñu tëj bañ xëy ba benn jour ñu tijji bus yi dañuy taxaloo comme léegi comme ni ñu doon def donc ci loolu nga ne ubbi nga salle de musculation fële côté mairie booy ñu ngi fay entraîner donc restriction yu bëri dañ ko bàyyi. Mhm. donc nit ñi dañuy jàpp ni affaire bi amatul solo noonu. xam nga jàngoro juy wàlle di rey ay nit ci adina rey ba rey ci suñuy mbokk doomu Sénégal foofu nax amu fa benn nax amu fa xam nga. dëgg normalement que nit ñi aussi. man mhm. man bu ma buma ah bu ma sañoon. mën mhm. naa juum mais gis nga nit boo defee farata ba pare après leneen li mën ko débat. waaw ah, mais nga boo moytoo luy wàlle daw di ñëw moytul mu ngi mel ni oto bu dagg di ñëw ci tali bi nga taxaw bi ban marque la. da ngay daw ba pare soog a lijjanti marque baag yooyu xam nga. dëgg la waaw man loolu laa bëgg nga dénk ko sa moromu ndaw ñi Ndiaye. incha incha ah, allah dinañ dinañ dinañ dolli ñaaxaat leen bu baax a baax. waaye ñu wax état bi rek ñu gën a farlu si côté ndaw ñi. dëgg la waaw ñu ñu jàppale leen bu baax. ndax comme yàlla def nañoo koy mujjee ji suba. Mm-hmm. waaw na si ci bu baax a baax ñu jàppale leen ci wàllu yow la nga xalaat employé la wala ban fànn nga xalaat ci njàppale. concernant ci fànn yëpp ndax bu ñu bu ñu déggee tamit ñu ngi ñu ngi séddoo littoral bi mm-hmm. ça ça va faire mal dinañu métti lool. dëgg la dëgg la ndax di nga gis loo moom ñu koy ñu koy séddoo. ñu koy lool ci xol. dëgg la c'est pas normal ñu naan waaw te ñu ngi naan ñun bu subaa fan la ñu war a dëkk ñun. Mm-hmm, mm-hmm. ñun ñaanu ñu dëkk foofu ndax ñun ñëpp ñoo ko bokk. waaye nag nañ ñu bàyyi xel bu baax. dëgg la très bien jërëjëf El mais merci Ndiaye merci. ñu ngi ziar waa balaa beeg Thiès diwaanu Thiès yëpp Ablaye.

man la Mamadou Mador la nuy nuyu ñu ngi lay ziar bu baax Mador. am mbégte rek ci groupe vraiment. ci mm. ànd daan corona bi groupe moom moom dëgg yàlla mu ngi bay waaram ni mu waree. alhamdulilah di ko dalee ci kaw muy Youssou ko rafetlu si taxawaay bu baax a baax ak ci bi nga xamante ñoo nekk ci wetam di ko jëf jërëjëf su TFM su Futurs Médias. jërëjëf. waaw xam nga euh, feebar moom bu amee ci ab dëkk. Mm. dañ war a xool lan moo waral feebar bi ak feebar fu mu jógee. waaye ku ne xam na ne na daan corona bi moom feebar bi dafa nekk feebar bu nga xam ne dañ ko doon dégg Chine lu ko fi indi ñu dañ ko doon dégg ay Amérique dem ba ni mu ngi Arabie Saoudite dem ba ne aj màkk amul dañ ko umra amul ba bu demee ba ne dugg na Sénégal ñun nag dañu war a fagaru lan mooy lan lan mooy tax ba du dal kenn mooy dañu déglu digle docteur te bu ñu toppee di alors di ci dugal mbirum politique wala di ci dugal ay mbirum non feebar bi amul ak nangam feebar bi lu am la dëgg la ba tax na daal damay wax ne communiqué communication bi nga xam ne ministère de la santé def na ko ci communication bi jàll nit ñi xam nañu feebar am mais dafa am hmm. ñu nga xam ne ci biir ay sabotage ñoo xamante ne bii euh, bu ñu nee feebar bi am na. Mm. am na ñoo xam ne mbirum politique moo tax ñu ci ñu ci dugg di di di di ci jugal mbirum politique di opposé wu naan alu feebar bi nangam. feebar bi lu am la nañu moytu. loolu loolu loolu loolu baaxul muy association yi muy mm. ASC yi muy daayira yi. Mm-hmm. muy regroupement yi rawatina euh, garage yi nga xamante ne bi ñooy yor dem bi ak dikk bi. Mm. nañu contrôle ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy dem ak a dikk. am na solo su ko defee ñoom tamit nañu nañuy jëfandikoo masque yi. day raxasu bu ko defee loolu mooy dëgg. bu ñu rafet lu baax taxawaay ministère de la santé président de la république tamit wax dëgg yàlla am saa su conseil des ministres mu ngi wax ak ministres yi. mu ngi wax ak ñi nga xamante ni ñoo yor côté santé muy ñoom Abdoulaye Diouf Sarr di wax ak ñoom pour. feebar nu ñu nu ñu def gaaw mu jógee ci dëkk bi. dëgg la nañ ci jàpp nañ ci jàpp. jërëjëf parce yi seen liggéey la ñuy def daal jërëjëf. jërëjëf Mamadou Médor jërëjëf waay 88 628 14 14 asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Xasan na nga fanaane. sant yàlla bu wér. waa kay ñu ngi leen di sant di leen gërëm itam. bisimilah ko ci coono yi ñëpp gis nañ ko ñëpp seede nañ ko. waaye dafay toll ci mbir foo xam ne. Mhm. su fekkee ne comme ni ko suñu mbokk yi waxee. daal soo ko uppee su su tëyee tàkk. Mhm. fu ne nga koy occupé uppee. dëgg la léeg-léeg saa itam nit ki war na taxaw. laaj boppam. Mhm. li tax lii nga xam ne mënees na cee duut baaraam. teg ci bët may wax ak ñii ñi ëpp ci ñoom gëmuñu ko question la soo xoolee diggante suñu borom subhanahu wa taala ak yonent yàlla ibrahima alayhi salatu wasalam nga xam ne moom soo ne sayiduna muhammad moom nga ciy teg xool yonent yàlla Moussa soo ne Ibrahima moom nga ciy teg ci ulul azmi min ar-rusul nan la yàlla jëflante ak ñoom Ibrahima dafa toog ba mu yàgg ne ko suñu borom mu ne ko ah Ibrahim mu ne ko suñu borom arini kayfa tuxyil mawta wan ma nooy dundale ñi nga xam ne dañoo dee ba noppi yàlla ne ko Ibrahima jottali ma yet bi ma dóor ko ko ndek ibrahim gëmuma day daf ko ne awalam tu'min xanaa gëmuloo waa sax dugg na fa maanaam yàlla xam ne Ibrahima gëm na waaye yàlla ak màggaayam daf ko ne jëlal nangami picc dugal leen ci gën dëbb leen tasaare leen nga xool ni ma leen di def mhm. preuve la ko wan Ibrahima dolli ci ngëm mhm. yonent yàlla Moussa dafa ne suñu borom subhaanahu wa taala rabbi arini anzuru ilayka suñu boroom waaye wan ma ma gis la waay mhm. naa la xool suñu borom ne eh, neew ko xanaa Moussa yow pourquoi gëmbuloo ma jottali ma yat wa ma dóor te daf ka ne ah kon nag xoolal ci doj wale su fekkee ne am na kàttanu dékku sama dara rek da ma gis mhm. ba yàlla commencé yóbba yóbbante signe ya doj wa dafa tasaaroo nekk poussière mu sa xëm mhm. fala ma afaqa ba mu ximmalikoo kenn ku ne xam na lu mu ca lu mu ca teg kon nag léegi état bu Sénégal mhm. ñun ñëpp la ñun ñun ñooy état ñun ñooy réew mi ñun ñëpp benn Sénégal bi lañu lenn la war a def mooy metti na xëj na waaye wanal nit ñu bari preuve ci gàttal mooy waxuma sax nga dem rek filmer dara indi leen duñ la gëm. Mhm. jëlal benn oto. wala ñett wala ñeent ñu ànd ak rajo Sénégal wala télévision Sénégal ngeen di dawal ci route bi nga xam ne mooy jaar université ñuy gis nga ñëw dugg biir fan mhm. ñuy gis nga dem dawal ba fi nga xam ne fa la ñu denc tuuti ci ña nga xam ne ñoo yor feebar bi bul wane sax seen kanam. Mhm. waaye nga ne asalaamaaleykum. docteur ba fa nekk maaleykum salaam. ah dañu ñëwoon pour nemmi ko suñuy am ñett ñu ci waxtaanal wala ñent mhm. kooku daal di ne ah fi am naa fi 400 malade léegi ñoom ñëpp ñu ngi nii tëdd bu kenn wane seen kanam mhm. léegi ñu jël ci ñaar wala ñett ñu wax ñu daal di génn foofu dem fi nga xam ne mooy service bi yor réanimation mhm. ot nit ñaa ngi leen di gis ci biir fan ñuy dawal seeni oto dugg asalaamaaleykum waaleykum salaam yéen la waakan ñu bind ca kaw réanimation nga gis ñu tëral fa fukki nit ñoo xam ne machine yaa ngi leen tiim seen kanam kenn du ko gis mhm. nga laaj docteur bi su fekkee ne am na ci ñoom ku mën a wax la plupart ñoom du ñu mën a wax mhm. gis nga loolu mooy yoon wi gën a gàtt di wër wër loog loo xam ne wër na leen day yàgg ca mhm. fin ba doo gis dara ndax crédibilité asan fa lay daanele lu am solo la daf lay jël ñeen fukki at pour nga tabax ko mm-hmm. nga xam ne loo wax rek mm-hmm. ñu ne gongo mm-hmm. koo digal mu def ko tere mu bàyyi ndax crédibilité ba waaye bis boo xasee ba tasaare mur bi nga xam ne mooy crédibilité bi doxoon sa diggante ak doomu aadama yi juróom ñett fukki at mën na la kaa jël te loo wax duñ la gëm loo def duñ ko gëm te na sa maintenant mën nañ la leeral sëñ bi wane wane googu ngay wax ma leeral rek balaa ngay dem ni eh, gars yi ci wàllu communication jot nañ ko def. nit ah, waa jot nañ ko def vraiment euh, ku dee yàgg sa bàmmeel muy RTS di eh, suñu télé yi. Euh, mm-hmm. def nañ ko ah, y a eu des moments où docteur yi may nañ leen ñu dem ba ci yooyu bërëb di wane maladie flouter les visages et tout nit ñi nit ñi kay lu ñu bëggati ñu wan leen laa xamul man ci gàttal rek mm-hmm. wax loolu barki biig mm. dama doch magek suma maskak lépp ma hmm. dajeeg sama maanaam ay gaay ñu taxaw nii rek eh, toog ñoom di waxtaan mhm. ma ne xaaral ma soroxalu ci diggante bi waxaale leen ne xëj na hmm. jege beeg yooyu ëpp na nañu jël tuuti masque nañu jël masque yi xëj na teg <laughs> ko teg dëgg waaye ñaar ñett ñeent ñëpp ñoom ñoo ànd ne ma yow est ce que mës ngaa gis ko corona mhm. ma ne leen mësuma ko gis de ñu ne ma est ce que mës ngaa gis dëju bii ñu ne dëju corona la hmm. ma ne ah déet mësuma ko gis de ñu ne ma xanaa xamuloo ne benn feebar bu na boo déclaré nangami euro nga ci am. Hmm. xanaa xamoo ne benn dee boo déclaré nangami euro nga ci lañ ci am. est-ce que. dafa mujj man ci sama bopp ñu yàq hmm? sama xel sax. waaw hmm. déedéet ëpp naa def. ma yéen a sama masque def maa ngi <laughs> jërëjëf macha allah ñu ngi lay gërëm di la ziar jërëjëf. jërëjëf ci participation bi <laughs> Ablaye da nga am njaay foofu doo bàyyi ñu continuer waxtaan rek. ah kon waaw Matar xalaas masque bi du pour gémmiñ gi rek ci bakkan bi ci la bokk bu dee sa bakkan bi daa mel ni sama bos bu mun ta dee masque nga wuti épingle <laughs> mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm di ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi Abdoulaye Diop bu nekkoon ci.